télé baa ngi bàyyi leen ko xel gaañee mag leen di dëkk waaye xale leen di daan mm-hmm. NTV laay doxantoo buñ la camérawee lépp dafay leer mm-hmm. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbàkku àddina salaamaaleykum yéen ñi nga xam ni yéenay seetaan NTV tey jii mbokk yi xam naa ne namoon ngeen ma te géej naa leen gis waaye xam ngeen ni mbas mi moot moo ko waral mu ñuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi si jàmm ak salaam di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo faatu ci mbas mi yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen biir kër yi mbokk yi tey maa ngi biir caaro yi su ma nee Caaroy xel yëpp dina dem ci champion yu mag yi fa nekk waaye tey dama fi dalal benn mbëru pikin mbëru pikin koo xam ni kenn dootu ko présenté si àdduna koo xam ni champion la toj na làmb ji waaye tey moom laa dalal fi nga xam ni moom mooy biir Caaroy muy Onde le Fou Onde nuyu naa la waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Hann TV ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla na suufu njar oyof ci kawam waaw sama lim national comme d'habitude Thiam léegi laay jiital ci lim national bi Thiam Daaru Thiam borom boo ko jëf waaw Laay Kapo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Sembène ah Karbala suma seex suma xarit papaam góor gi Diop IPD suma papa sama yaay Marie sama yaay Ndey mari Géwél sama yaay Aminta Dramé ah waa top 5 fitness mooy salle bi ñu fekk nii ñuy entraîné kër su Thomas Cheikh Baye Moussa suma rak suma xarit ah. ak Cheikh kër waa Zimbi ah, ak ñu nekk ci suuf ak champion fi yi fiy entraîné yëpp waaw ñuy bëggee ñëpp. gannaaw bi nga nuyoo say am di jàmm say xarit say dëkkandoo am lenn li ngay njëkk laaj mooy Onde ñu gis ni yow yaa créé li nga xam ne moom mooy xam sa cosaan yow ak ñoom naaru sogaa ak gaa ñu gis nag Onde tardement bi lan waral tardement boobu. waaw sant yàlla quoi xam sa cosaan dëgg man maa ko créé mais ndox boo gis ndox boo gis rek kii la quoi ci yoon ndog boo giseek rek sant la quoi ndax. am na ñoo xam ne dañoo gaawoon yoon tey jóge nañ fi mais donte man maa ngi def tepp-tepp bay ñëw sant yàlla parce que dañoo nekkoon ak suñu waayjur mu feebar xam nga yàlla nattoo ñu ko ñu toog doon ànd ak moom di muñ li ñu neex ak li ñu naqar yëpp ba tey yàlla jëlee ko fi quoi xam nga waaw ñu ñu nekk ci liggéey bi mais sant yàlla quoi parce que man gëw ma tardé gëw ma tardé man gëw ma loolu sama àdduna ndax damaa gëm ni lépp lu nit am rek yàlla moom moo ko jox mu war koo am quoi. ma tëdd yaakaar naa jamono yee toggoon nañ ci sa combat bi Siteu di soog a fël yaag moom waxoon nañ sa combat Siteu yow yaa daw combat bi wala moom moo daw combat bi yaag Simba Siteu non daw man du ma daw laam man du ma daw kenn man ragaluma kenn mais jëloo ko waaw parce que ci ay problème mu caché lañ amoon problème ñu am ay malentendu yi ñetti promoteur ko bëggoon ba ñeent mais yàlla def sottiwul mais xam naa ni moom lu mu yàgg-yàgg maa ngi moom dañuy non ak fii ak fii si te toll jamono ji ñu toll. man fan man fan laa toll. yow foo toll. xamoo. di di tey kan nga bëre. nataal sama tolluwaay. waay kan nga bëre rek. ña ak Ada Fass mën nga ma wax ñaata mbër nga daan. waaw. ma ko wax ma ñaata man am naa 14 combats. ñaata défaite. 3 défaite benn combat sans verdict. sa combat sans verdict yaakaar la sama combat sans verdict maa kati junior la woon. ok on on yow waxuma lu leer nañ bu ma mën a comprendre. ci ci diggante Siteu ngeen di yàgg problème mu kase ngeen amone té cité tay euh ñukoy gis mu fayeku manam dem na ba ci ay 30 millions suma juumul hein yow yaa ngi ci bëri suma juumul yaa ngi ci bu féké 80000 sax si nga yem moom 80 fa bo sax fayeku mu muju 80000 la laaj <laughs> suma juumul waaw xam nga man li may du du du ma ko wax quoi mais sant naa yàlla bu baax tamit ci limay fayeku wa limuy fayeku tamit ma koy ñaanal yalla yalla na yok parce que juste que ni moom du sama ennemi nit ku baax la quoi nit ku ma bëgg la parce que am na sam benn booy bu nekk poste Thiaroye boo xam ne Siteu heure bu ko mësaan a gis day jël téléphone am ni ko jox ma numéro Onde mu jox ko sama mu woo ma xam nga di ma tooñ di ma daraaye quoi loolu nit ku baax la maa ngi moom nekk ñu ay ennemi li mu am yéene naa ko lu ko ëpp parce que moom dafa déparé ci zéro di ñafe ñu naan kii du mbër kii du dem ba tey mu egg fii mu egg kon li mu bëgg ci àdduna moom moo ko xam yàlla ko yàlla defal problème mu cachet mooy dañ ko fayone 3 millions bëgg ma fay 500000 looloo indi won problème 3 millions lañ ko fayone bëgg ma fay 500000 ma bañ après problème yi ci la juddoo woon quoi parce que jamono joj tamit maa ngi moom ñoo fi nekkoon. mu nekk combat bo xamni Sénégal yépp ko bëggoon quoi. waaw moom ci walu bopam mu bëgg ko man ma bëgg ko. mu leer nañ waaw loolu la woon quoi. tay sa victoire ci Ada Fass ñu bëri ne victoire bobu daf leen bett parce que onu moy bëri. ak Ada Fass ak Ada fi mu mel ni mel xeyna ñi peut-être ñi xamul ordre la wala wala li ñu wax deug la ndax daf leen bet am deet wa xam man damay damay betaté quoi ndax ñun dañoo yar ci modest ñun dañoo yar ci modest quoi dañoo yar ci nit lu mu am jarul mu koy titero waye lu mu ñak tamit warul tax mo mu xet bopam quoi ñun ci lool la yar man boma ma gisee ni may dem sax buñ la né ki mbeur la doko gëm man jamm moma gënal lepp fu ma nek fo quoi mais tey ñooñ doon ma jugé dañ maa xamul parce que man sama combat ak Ada Fass def naa ci loo xam ne nii bugguma ko ci woon sax def mooy lan di xeex di dóore man bugguma loolu bugguma dóor nit bugguma luy metti nit bugguma dara quoi looloo waraloon loolu mais ñi ci bëri dañ laa xamul ak temps yàgg bi ngay toogoon bëre woo ñuy wax bàyyi nga bëre lu nekk ñu koy wax xamuñu ko xam nga Sénégal moom bu xamulee day jugé nu ne mais keroog looloo tax ñu ñëw wane loolu waaw lii nii laaj na la nii promoteur yi ñu ngi lay seet si wala déjà am nga combat ba pare wala. waaw man moom bi ma duggee ci làmb ba léegi musuma toog bu ma promoteur woowulee di ma wax waxu combat quoi man yàlla dafa def axlu làmb dañ maa bëgg quoi. Mhm. man mbëru askan bi laa. waaw bu ma toogee sama kër sax dañ may woo pourquoi génn ñu ngi may wax ay komba mais est-ce que ñi ñu may wax ñooñu laa war a bëreel. Mhm. xam nga est que tamit prix bi ñu may fay tamit ci ñi ma war a bëreel baax na loolooy wax. parce man dama doon Euh, làmb ji chaque fois bu làmb amee Onda la Fou day ñëw ci biir day ñëw ci làmb ji mais tey ci biir làmb ji dañuy gëj gis Onda la Fou lan ma waral loolu am na. waaw mooy dama la koy wax sama dama nekkoon ak sama waajur mu tawatoon waa ay nattu daloon ko mu feebar ba tey yàlla jëlee ko fi moom moo waraloon loolu looloo waral ndog bi sax li ci ëpp. ba pare maa nekk nit koo xam ne nii jàppale ñu ko amoo bëri woo jàppale quoi bëgguma di ko wax parce que man jàmbaar laa ndax jàmbaar du ñaxtu ay jàppale. jambar moom chaque jour mi ngi ci war wi du ñaxtu ay jappalé nañ ma jàppale ñu ma mais lool dafa manké won ci lu bari ma gëm sama bop nek suma ruku nak di dundu carrière solo di karier carrière solo na ma maayan di demal di di ak sumay may sumay moy bop motax man gëw ma ne dama taxé rek quoi ndax luma am man dama ka liggé ñafeel ko sama bop ba am ko ñi ci teg loxo wu amana sax ñi yaq mo ëpp amana man ñi may yaqal barki Serigne Saliou mo ëpp damay xëy suba moo ngoon des fois may dégg ay wax yoo xam ni saam me fait mal mais ça me dérange pas parce que man guerrier laa te góor laa te xam naa ni loolu ak àdduna ñoo ànd quoi. li dañ lay yàqal. non mais c'est parce que nit moom am na wax yoo xam ne boo ko waxee ci moom rek defaraloo ko quoi mais tamit nit tolluwaayam fu mu fu xel mi toll rek noonu lay kii man sant yàlla quoi parce que ñi fi jaar ñëpp. ay ay personne bonne volonté la ñu woon mooy ñi nga xam ne man ñoom laa def référence man ay Serigne Touba laa def référence man ñooñu laa ñee mm-hmm. ay maam Alaaji Malick ah ay waaw Nelson Mandela ñooñu noonu guerrier yooyu nga xam ne ñoom bi ñuy départ ci zéro lañ déparé ba tey lu ñu lu seen njaboot am ci àdduna wala lii rek ñoom ñoo ko liggéey quoi ñoom ñoo ko ñafe man ñooñu laay roy quoi. gis nañu Onde nga créé euh, association des jeunes lutteurs ndax dañ ko def pour défendre seen bopp. Voilà da beaucoup de ci association non association des jeunes lutteurs ont dañ ko pour faire des affaires nous ñu koy def Mais yu ndaw yi. waaw yu ndaw yi dañ leen jox billets y ñu koy jaay xam nga mu ndaw bi cent wala deux promoteur bi pour promoteur bi jox des pour mu jaay après pour mu jox ko après mu jaay ko donc mbeur mu ndaw bi day day dag assurance même mbeur mu mag bi sax assurance bi du ko assurer bo beure ba paré bu wesso alcool biñ lay defal ci lamb ji paré nañ ci yow mbeur mu ndaw bi day dag licence comme mbeur mu mag bi limuy dag licence té lool du yoon xam nga yoy lañuy xex liko li ménager bi di li li li arbitre bi di dag mbeur mu ndaw bi mom lay dag mbeur mu mag bi bu koy avertir cause yoy lañ bëgg mu juggé fi promoteur bi da fay teug lambam teug lambam def ci xaaliss bu fekkee dafa fekk benn mbër bu ndaw boo xam ne amul public mu jàppale ko tëggal ko te mënoo jaay billet moo pour man fay fay fay nit ki ci billet bi moo gën a gaaw nga fay ko xaalis parce que kilé yi koo xam ne da koy fay du la indil dara bon amul sens moom it day perte perte bu rëy. Ah, ay millions lay def ci làmb. waaw ah, promoteur bi promoteur bi ñun ak moom. waaw gagnant gagnant la ñuy joué ñun amuñu problème ak promoteur yi. parce que promoteur yi dañoo dem liggéey seen xaalis feneen ñafe seen live ñëw liggéey seen xaalis. investir ko ci ben affaire buñu xamé ni ñom dañuy perte duñ jël seen xaalis diko duggal ci ben affaire quoi ñun amul lén luñ ñu leen di baraamee wax liñuy wax ci ñom moy tay ñun bu day wax sax suñu ménager yi lañuy gëna waxal parce que ménager bi moom moy jël suñu 10 suñu entre président bi ñu jox égré bi muy président égré bi koku daf ñoo war a parce que président mom lañ jël dénk suñu bok xamalé ma la wax loolu noonu mbër yu ndaw yi bëgg nañ ko ñoo ko gën a bëgg mais gis nga combat yi fees fii yëpp ci stade bi nga koy seetaan mbër yu ndaw yi ñoo koy fees barki Serigne Saliou Mbacke boo tëgg combat boo fi mënti tëgg bu amulee combat bu ndaw lamb ji du fees ma loolu man mais lamb yi xam nga lamb yu ndaw dañ ko def pour neexal jotaay pour neexal lamb ji mais Ondo xam nga ni mbër yu mag yi moo tax gars yi di déplacé wu di dem lamb ja di dem stade mais lamb bu neexul lamb bu buñ ko deful pour mu neex pour lan la te mbeur yu ndaw yi moo ñu def ko fi pour mu neex dañ koy neexal mais pour mu neex pour lamb dañuy teug ay mbeur pour mu naqari déedéet amul mbër yu ndaw yi lañ samp pour lamb ji neex dafa comprendre lamb ji waaw ñom ñoy fessal lamb ji waaw tay tey feesal su doon may teug lamb dina jël ma bu ma bëggee sama lamb neex peut-être ma dem jëli benn yaaw jaal fay ko mu ñëw bëreel waaw looloo yaaw jaal da quelque chose bo xamni ni waaw léegi xam nga fay nga wax foofu mais dañ la fayatul

te CNG bi ñu bàyyi tamit nekk complice su promoteurs yi ñoom xam nañu li xew CNG xam nañ li xew xam nañ ni mbër yi dañ leen di jox ay billets ñu koy jaay mais waruñoo wax mbër bu ñu fi jox ay billets nga jaay ko da dem da ngay ñëw dénoncé ko ni diw jox na ma ay billets ma jaay ko boo ko dénoncé wul suñu yoon nekku ci mais police doxeewul noonu police waxul kuñ jaay yàmba ñëwal déclaré ni diw jaay na ma yàmba ma jàpp ko yaa jaagatu yàmba bi yëpp la ñuy jàpp ñun bañuñu ci ba CNG bi bu jë bu gisatee loolu ñun association bi mbër bi ñu fi jox billet ñun ñu dénoncé ko CNG bi CNG bi dal ci seen kaw mbër bi ak promoteur bi yëpp waaw. on na ñu gis ni euh, Mobile 2 dafa def conférence de presse ne arène nationale bi euh, day rey làmb arène nationale bi euh, mën na sax dem ba indil làmb ay jafe-jafe lan nga gisee point de vue am boobu.

non déggoo li ma la wax dama ne la nguur gi bi ñu toogee ba léegi ñun gisuñu suñu bopp ci moom ñun waxuma la avant lii gis nga suspension yi maire yi di joxe sax maire yi mbëri bokkuñu ci amul amul benn maire buy suspensionné koñ bi mu dëkk. mbëri kan la ko kan la ko def kan la suspensionné ci làmb. xëy na neel yow jotoo ci. defaluñ ko peut être ay mbëri yu nekk foofu ay ñoom Eumeu benn nit ngay suspensionné Eumeu Sène euh, non mais boo amul loolu amul loolu ku la ko wax amul musul am. mbokk yi yéen a ko gisandoo. danaan tey maag Onde le Fou ci biir Hann TV non tey ngeen dégg loolu mosul dégg Hann TV ak Onde le Fou Onde tey su ma ñëwee nga gis problème mu Abdou Diouf ak guy gi ñuy reyante lan mooy sa point de ci loolu. waa ñoom ñoo bokk seen fi ñu dëkk. ba ñuy xamante yàgg na mhm. mais problème nag mun mënta ñàkk ci ay diggante ay nit yuy ànd parce que man am na ñu ma amal problème man bu ma nee aw maa kenn problème waxuma dëgg mais dafa war a am ay nit ñoo xam ne ñoom la ñu dëkkal ñuy dox jàmm ñooñ nañ ci dox tànku jàmm quoi mhm. ndax man euh, ñoom ñëpp nii laa leen xamee mais ku ci nekk gentleman laa gis ci yow quoi mhm. xam mais nag nit ay nit des fois dañuy dañuy jotee ku nekk am nga koy joteel ku nekk tamit nangam quoi mais nañ bàyyi mu sedd man bu ma amoon lu ma leen di wax dama naan leen frère bàyyi leen mu sedd ndax àdduna amul solo quoi tey lii nii yëpp nettali lay mujjee ndax tey ñaanu ma ko yàlla ku fi sa moroom juge woon après jëw bi du rafet xam nga ma sañoon ngeen nekk ci jàmm te xam naa ni kenn jàppalul sa moroom lu ñaaw quoi man loolu la amoon lu ñi mu ñi ñu dëkkal nag dëkkandoo loolooy njëriñ bi dëkkandoo day fekk lu ñaaw moom mu dox ci tànku jàmm ba loolu sotti quoi xam nga maa ngi leen di ñaan yéen ñetti ñooñu ñëpp samay frère man Ondou fu maa ñun ñoo bokk xam nga maa ngi leen di ñaan ku ci nekk xam naa jàppaloo leen seen morom dara sax nee na rafet quoi. on ñu gis situation àdduna nu mu fa demee jamono ji yaa ngi gis mbas mi lëmbee àdduna bi suñu réew actuellement di jàkkanteeg li ñu doon wax maanaam ci diggante diir yu gàtt ay 20 morts 25 morts après nga dégg jékki-jékki dégg ni euh, camion vaccin bi avion vaccin bi wàcc na. ñu war a ñëpp pikiiru ndax feebar bu amee li koy faj bu ñu ko gisee dañ si war a pikiiru ond xanaa di nga jël sa devant si yaay njiitu association bi nga dem jël sa devant ànd ak gaa yëpp dem vacciné wu gis nga ñi ñu jiite nañu nawloo quoi xam nga ñàkk a nawloo nit ki mënul weesu dëkk bi dëgër dimbalewuñu ñu ceeb cher diwlin cher nit ñi di sonn est-ce que nga. nguur gi joxe soo joxe woon na loolu yëpp. barki Serigne Bamba li ñu joxe matul sama koñ xuloo la fa mujjee indi ndimbal bi ñu doon joxe guerre la mujjee indi ci biir nit ñi parce que nguur gi nguur yi dañoo mel ni ñu nekk ci nguur gi ay seytaane la ñoom diñ jaxase moo leen neex bu tayee ñu jaxase ñoo policiers yi bu subaa ñu jaxase ñu askan bi ñun ci suñu bopp te ñoom lu am ñu dem tëddi Europe ak seeni doom duñ ci yëg dara ñun ñuy lakk ay bus ak di lakk ay kaar ñu bëgg ñoo def mala déedéet dimbali leen askan bi askan bi moom moo leen fi teg dëkk bi dafa metti nit ñi ñu ngi dund ay coono yu metti tu sais comprendre nga yéen ay passeport diplomatique ngeen yor seen doom yi yor ko bu ñu feebaree faju xamoo leen lu kilo ceeb di jaar nit ñi balaa ñoo añ xam nga ban heure lañ daan añ ay temps midi. ñuy dem bay añ une heure ñuy dem bay añ midi et demi. di dem bay añ une ñuy dem bay añ une heure demi léegi deux heures. léegi trois heures la ñuy am na ñu ñëw trois heures quatre waaw loolu xam nga lan moo ko waral. ñàkk dépasse. ñàkk dépasse nit ñi dañuy liggéey ba benn heure bi doo ko joxe dépasse pour ñu togg seen kër. kon tey couvre-feu bi ñu def nii vingt heures am euh, peut être yow sa jàngat ci lal lan la ci bokk. ndax ah. jar na couvre ko comme feebar bi bëccëg lay la ñuy wax ni bëccëg la nit ñi di dajaloo guddi gi ñu ñëw dañuy wàcc am seen lan nga wax ci feebar bi. non dëkk bi moo jarul waxuma la couvre-feu mais jarul couvre leneen. fii leneen lu fi mënoon a dugg nañ dimbali askan bi ñoom askan bi moom moo leen fi teg te bi ñuy dugg ci askan bi ñuy ñëw askan bi di leen fi teg waxuñu leen woon lii lii wor la lii wor la bu pare ñu nekk ci tele yi ak rajo yi ak star yi nañ bàyyi nekk complice ñooñu ñoom ñooy nekk seen complice di leen waxal naan dëkk bi neex na dëkk bi lii liggéey ngeen liggéeyoo leen dara askan bi sonn nañ ba pare gis nga gis nga ñu nekk ci média yi ñu nekk ci chaîne YouTube bi amel nañ askan bi ak hmm. tra sëriñ pra tradi traditionnel yi ñu ngi ëmbal jabaru jàmbur yi ñu ngi ëmbal jabaru jàmbur yi ñu ngi fen ñu ngi tiriyaane nit ñi ñu ngi leen di def lu bon lu ne sa menn xarit jabaram lañ ëmbal déedéet barki alxuraan ku nekk Europe ñu naan ko ay dinañ la defalal loo xam ne nii sa jëkkër lu am wu jëg du def leneen barki alxuraanu karim mu dem fa sëriñ bi da koo mujjee ëmbal démb maa ngi seetaan benn waay mu ni ngelaw liy ñëw fii wax nañ ko ko ni ko moom mooy fay coowu sonkoli dina am benn ngelaw buy ñëw mais mooy fay coowu sonkoli ngelaw li wax nañ ma ko avant moo ñëw trois jours billahi audio yaa ngi sam ben copain bu nek mauritanie mune ñun fi mu toll mais xam ci deux jours dina ñew Sénégal dañ baay di jouer xana man kon buma neexon ma génn ni amna ben ngelaw luy temps di nga dégg nangam ak nangam dañ ci ci ci wala di exploiter leneen ak leneen. ondu nga a parce que askan bi mo mo fi tek mo vues. waroo leen gëlëmal wax leen loo xam ne nii nekkul nañ dimbali nit ñi dëkk bi nit ñi sonn nañ nit ñi jaaxle nañu. kon amagoo soxla. non fan laa koy jëlee ak fi réew mi tool. mën nga am soxna nag. mën naa am soxna. na ñàkkul am na leneen loo xam ne yaa ngi koy gérer si biir. waaw mais ba ci man daal amaguma jabar Youssou Ndour nee na bëgguma am doom bu añee du reer bëgguma am doom kenn du ko ñee. waaw. man daal bëggoon naa bu ma doon bu ma doon wax. waaw a jox sama doomu ndey la. làmb ma loolu ci àdduna maa moom bu ñu fi desoon kenn làmb de. Mm. Africa du ma bëreeg moom ndax nit ku baax la quoi. Mm-hmm. nit koo xam ne la tànkam luwul sama dara tànkam luwul sama dara Africa ni may toppatooyee sax man damay dem ba ruus ni est-ce que man maa koy remonter kii bi quoi maa ngi koy delloo monnaie bi parce que nit bu la dee defal lu baax danga nga ko war a fay ba ma ko xamee ba léegi zéro faute quoi. Bay Fall bi yow dundal ya xamni nga bëgg yalla na lako ya suñu borom defal ah afrika oh, oh ondu dama lay dama lay fatali souvenir bu yàgg bu yàgg la lay fatali xamna fatali won nga ko ci yara lamb bu fa amone ben mbapat yaag Moussa Ndoye bëre bu yàgg est ce que yaa ngi fàttali man nga xam man dama ay man luma def fàtte man xam nga damaa <laughs> ndax lima def ci aduna bari quoi man beure def naa ci lu ne. bëre dégg naa ci yaama yaama dégg naa ci yaama yàq. ñu dégg naa ci soo ma takkul du ma sëy. bëre dégg ci ci làmb dégg naa ci soo ma takkul du ma sëy barki Serigne Bamba dégg naa ci sax wàcc ma yaa ngi may gaañ. <laughs> wàcc ma yaa ngi may sax dégg naa ko ci dégg naa ci lu ne. maanaam on lépp làmb dégg naa barki Serigne Salim dégg naa def naa ci lu ne. làmb def naa ci lu ne daf maa war a fay nag dafa jot ma fayoo ko. làmb sama xaalis dafa nekk ci làmb te dama koy jël si barki Serigne Salim dama koy jëli. su ma la laajee sa diggante ak sa kët ma gis mu lay teg lu mett ci biir salle bi seen diggante seen relation lan la. waaye jërë nee naa ñi ñii dematuñ ba nekkatuñ samay kët su quoi ki nekkatul sama kët sama frère la sama grand frère la waaw Cheikh sama rakk la Baye Moussa sama rakk la. Mhm. ñun ñi nekk ci fii déggoo li ma la xale bu ndaw bi nekk ci biir kër gi rek moom la ma tamaa doon wax bërki démb. Mhm. ni ma boo ñëwulee day ñëw ba ci man ni ma ana tonton Onde am na nekk fii Ndumbé ak yaay seen waa bu ma ñëwulee dañuy dem ma dañ may laajte kon man amatuma aw am man famille laa nekkal quoi famille man ñii su may famille lañ nekkuñu ñoo xam ne nii samay samay samay kës lañ wala dara waaw parce que maa ñoom amatuñ leen lu ñuy nëbboo quoi aw ma seen fay nag yàlla moom moo am seen fay ndax man loolu jiwuma leen defaluma leen dara mais ñoom ñoo baax seen baaxu bopp quoi ma leen ñaanal yàlla fi ñu bëgg egg ci àdduna yàlla na leen seet seet waaw ñu kës euh, ñu gis nga teg sa waay lu métti ci biir salle bi ndax moom ku ñeme entraînement la wala régulier na day ñëw sax jour am déet. waaw waaw moom mu ngi ci liggéey bi de chaque jour mu ngi ci liggéey bi depuis depuis combat ba léegi bàyyiwul. ba léegi bàyyiwul. mu ngi ci liggéey bi. mu ngi ci liggéey bi waaw di góorgóorlu ah, koy teg lu métti. waaw ah, ah léeg-léeg baaru daw léeg-léeg koy teg moom ba mu arrêté daw. non ñaari fan du ñëw. onu champion la. ok moo tax taamu luñ ko mbër. dañoo mbër mu mu jël baax na. parce que gis nañ capacité yi nekk ci moom. ak jom ji nekk ci moom doole ji nekk ci moom dafa wér doole ju wér la yor waaw moo tax ñu am sañ-sañ naka jëlal ku la neex tey boo ko doon conseillé ci moom lan ngay la boo doon dindi dara ci moom tey looy dindi ci moom ci comme booy dindi dara maanaam ci euh, façon bëreem non non façon bëreem doo dindi ci moom kenn ko corrigé ci dara jamono bi parce que am na benn xam-xam bu nekk ci moom bu laax ñun gis nañ ko te ñun xam nañ ko ba pare am na benn jom boo xamante ni mi ngi ci moom fu ñu fa àgg ci mbër ci musculation combat dafay àgg ba dépassé ko. te du du du yëngal du yëngu comprendre nga. bëri ay mbër ñuy ànd ak ñoom ci musculation combat ak bu dul musculation combat dafa am. waaw la combat dafa difficile mbër mu ko échappé rek dem nga. bëri na mbër yi entraîné te duñu entraîné musculation combat. loolu am doole ji day des. te am na fu ñu àgg ak moom. donc gis nañ capacité bi gis nañ jom bi donc nit la boo xam ne daal mi ngi nañu ñaan yàlla rek yàlla defal ko jàmm. li ci kanam rawul bët jërëjëf kër si ñu ngi lay béggee waaw ci teew bi nga ñu accepté yàlla minute yi ñu may nii jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di gërëm sama woykat baa ngi nii sa woykat bi moo ngi nii asuñang a ngi nii est-ce que du sawar bi as kii mooy asuñang kii mooy asuñang kii mooy borom caaroy géej asuñang yaa borom caaroy géej asu daa mel ne fi ñëw test sport de moom asuñang waaye day wóor li ma la wax fii ñëpp a ngi fi asu dangay jékki-jékki rek gis Macky Sall fii nga kii mënu la fu fii sa dëgg asu sa diggante sa waay doomu ndeyu kar waaw sama waay moom daa doon nit ku baax dañuy fekkante fii ci salle bi mais nit ku baax la ko oyof la ku wàcce boppam la te mënoon na bu ñëwee fii war a yéegal boppam xam ne ak àgg na benn niveau bi mais kon bu boobaa dañ koy jox cëram bu baax mais dafa wàcce diggante bi ma xamanteeg moom moom yàggul yàgg na ndax ñu ngi xamante stade moom xamuma nag mais man moom xam naa ko mais nit ku wàcc la daal waaw. borom asu nel der. ah bàkk naa la yaay daan wóolu naa laay ondelefu kuy bere yaay da ngay daan mbaa ñu daan la samba mbayaani duma koy ku réew duma koy baadool baadool la xamul yee la dañ koy joo muy njoowaan ondelefu laay doxantoo mer dugun bu soow la ni woowe sama doomi yaay yee eh, waa top 5 fitness ay waayi too maa ngi ci biir ah seex a ngi ci biir buy defar saw yaram te bëgg mu baax ñëwal top 5 fitness foofu la gaa ñuy defaree seen yaram mbërgaleey mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooyi fanaan ana MTV Hann TV télé baa ngi bàyyi leen ka xel gaañee mag leen di dëkk waaye xale leen di daan MTV laay doxantoo bu la caméra wi lépp dafay leer mm-hmm. bu ñuulee ci yow leen gën a aay lan la jox te bu den daanee waay inti bi gaañaangee gaañaangee waaw mbërgal la yaay su guddi fooy fanaan daje dégg nañ waxtaan bi dégg nañ way wi macha allah baat bii ngi fi tarkal yàlla na wér euh, tey nga nekk waykat yow it ak fi mbas mi toll jafe-jafe yi nan nga koy dundee. metti na de metti na moom. Ah. instant bi ndax tëggatuñu benn programme. dematuñu xew. dematuñu fen ñu ngi toog daal suñu kër nag mais ñu ngi defaru bu baax. waaw ñu ngi koy defar bu baax pour waajal. incha allahu rabi ñaan yàlla mbas mi yàlla jëlee ko fi. amiin barke moo Mohamed. ne ba nu delluwaat ci suñuy activité say conseil sa sa waay lan xanaa mu gëm boppam. Mm-hmm. ndax li naan boo gëmul sa bopp rek. loo mëneen leneen loo mënti gëm rek da koy wàcc da ngay gëm sa bopp ba pare avant tout te moom xool naa ko mu doon nit ku gëm boppam day wàcce boppam ñëw si fi muy entraîné liggéey li muy liggéey def ko fulla ak fayda duggul ci kenn nag man li ma gën a neexee mooy duggul ci kenn bariwul ay wax bariwul coow waaw te góor nag dëgg-dëgg doo bari coow doo bëri mbelelele da ngay liggéey ñu xam ne kii ka gis xam ne liggéey na kon xam xam nga xale yi kon fi ne nii dañ ko war a bàyyi xel. waaw <laughs> ah, moom kontaan nañ jërëjëf baax la quoi xam nga fii lay nekk di entraîner xam nga. waaw nekk jigéen joo xam ne tamit dafa simple gëm boppam xam nga nekk borom baax quoi ñu koy ñaanal waaw fi nga xam ne waykat yu mag yi fa lañ egg yàlla na dem ba egg fa yàlla na dem ba indi fi dig dig si door ah waaw moom lu dund quoi ci kanam ci kaw ci kanam aji jërëjëf kontaan nañ mbokk yi nee naa leen ak Onde le Fou tey dara du doy ba tey ñu ngi moom ci Hann TV fas yéene Onde émission bi jeex na loy tëjee. waaw sant ñëpp gërëm ñëpp. waaw sama ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di wax ne liñ fi wax lépp juste que ni lu kuy pour luy luy defar la. maa ngi leen di ñaanal tamit yàlla na Hann TV dem ba nekk télé bi gën a mag télé yi xam nga maa ngi ñaanal ñëpp di leen ñaanal yàlla na ngeen wér yàlla na leen seytaane bàyyi xam nga yéen a xam ni ngeen bëgg yàlla suñu borom defal leen ko di continuer di xam nga di ñaanal ñëpp daal ñaanal réew mi ñëpp bëggee naa ñëpp. peace one love ah. jërëjëf Onde la woon ak waa Hann TV fils de dëgër musóor fii ci biir Thiaroye top 5 fitness bëggee naa ñëpp peace one love. jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi kontaanal di leen bëggee ci beneen émission làmb tey ñu ngi am mbégte dalaloon ki nga xam ni moom mooy Onde la Fou Onde ci top 5 fitness tey jii mbokk yi ñoo ngi am kontaantement maa ngi gërëm sama waaja. muy Pa saa Sañse nekk moromu Mars aslem nga xam ni kuy xew mbaa ngay am cérémonie boo ñëwee ci moom dana la sañseel ba nga rafet kooku mooy Pa saa Sañse maa ngi gërëm maam nee na jaase di gërëm en plus ki nga xam ni moom mooy mair de Hann Bel-Air muy Babacar Meng sama waa ji Baro maa ngi lay ziar Mbay Saw xam naa ni kontaan naa ci yow bégg naa dinaa fa jaar waxtaan ak gars yi Omar moo fi yegg si woon borom frappe yegg si na ak ki nga xam ne moo mooy Onde maa ngi leen di jox dig daje ci yeneen émission ak beneen émission ak Hann TV eh borom frappe si na de.